arbitre baa ngi noonu di wax ñoom ñaari mbëri dox ci diggante Joe Technique ndaysaan Joe Technique numéro 2 ak Alboury Joe Technique ndaysaan ñoom ñaara ngi noonu ñoom ñaara ngi noonu Joe Joe war na ko ginnaaw tuuti kenn du moom Alboury toj na nen Joe ak Alboury Alboury Joe Technique ñoom ñaari mbër yaa ngi noonu taxaw arbitre bi nee na Alboury fëggal sa suuf si nee na ko fëggal sa suuf si. Alboury technique ndaysaan Alboury technique Alboury technique Alboury technique Alboury sifle na Alboury ñu ngi ñoom ñaar Alboury Jeux Technique ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar commandant Thioune ñaari xale yaa ngi lewaatoo Alboury Jeux Technique Alboury moo la féete ginnaaw Jeux Technique nga jàkkaarloo moo la féete càmmoñ Alboury Jeux Technique Alboury Jeux Technique ndaysaan ñu ngi lewaatoo ñoom ñaari xale yi Alboury Jeux Technique Jeux Technique ngay bàkku Alboury ngay déglu pour ndaanaan la ci làmb stade bi ñëpp dañoo ci ëpp dañu koo soob ndax façon de communication moom zone technique ndaysaan waaye rëg-rëg a ngay yëngal ndaysaan zone technique ndaysaan zone technique Alboury Alboury ngi dox ci kawam ndànk mais Zo dafa nekk à l'aise ci combat bi Zo technique ma ngay njàpp ma ngay bàkku ma ngay wax ne arbitre bi mu ngi leen woo arbitre bi Zo est muy def du stratégie ci combat bi est-ce que bokkul ci làmb ji Zo technique Alboury bi ndaysaan arbitre bi sifflé waat na ba tey Zo technique Alboury ndaysaan ñoom ñaar ngi lewaatoo zoo technique Albouri Albouri nag lu mu bëgg waaye zoo ngay déglu rek Albouri sàmmal ma sa tànk yi si sa tànk yi la jëm zoo ndaanaan la est-ce que xeex dina am ci combat bi wala déet est-ce que xeex dina am Albouri zoo technique daw la jëli ko waa yomb day jeex wala déet zoo daa mënee loolu zoo daa mënee loolu Zoe daa mu ne loolu jël na ko ci suuf jege suuf waaye Alboury tëru na ko Zoe technique fi mu jàpp baax na Zoe Alboury Zoe Alboury Alboury fàqat na ko yegg nañ saako yi Alboury Zoe technique Alboury bloqué na ko sol na loxo càmmoñ ba ma ci suuf Alboury est-ce am na fi yoon Zoe technique daa bëgg a jóg ma rokkas ci suuf Alboury a ngi dóor. ndeysaan Alboury ngi dóor Alboury ngi dóor Alboury ngi dóor ci waaye Zo fu mu tey baax na Zo bu jàppee du bàyyi arbitre bi wooy na ko Ardo wala déet Ardo arbitre bi yóbbu na Ardo Ndaysaan Alboury zootechnique Pape Sarr noo gisee ñaari xale yi Alboury ak zootechnique. aywa lépp lu muy def na leer mbasa bu ngi bëre koo xam ne. Alboury moo indi tey waaw maa koy ñaanal yàlla may ko. Alboury. dara maa ko bëggal sama bopp. muy sama booy di ma woo téléphone maa ngi. waaw billaay yal na ko yàlla may ndam. yóbbu na zoo technique ardo ar public bi jug leen. est-ce que loolooy jeexal lamb. loolu daanu ko de jàpp fu wóor def lu wóor mooy daan kii parce que ay combat yëpp dama ko seetaan ndaanaan la waaw yëfu dof dof lu yooyu muy def si la lay daanee léegi nag Alboury daa xam loolu moo tax mu teey gérer combat bi mais tey dañ ko yab daal maa ngi ñaan yàlla may ko ndam. di journée bu mag bi dox ci diggante Karakat. Zarko Mbaye Gouy Gui. dimanche bii di ñëw tey dimanche bi tey bu ñëwee maa ngi woo ñëpp stade i Mar Zarko Mbaye Gouy Gui. dimanche bii di ñëw bii ñu jëm bii di ñëw tey bi bu delloo yaa ngi ci dimanche. ci Gouy Gui ak Reug bu ñëwaatee maa ngi ci woo ñëpp. tey moo lay wan tey nañu ñëw xool Mbaye Gouy Gui ak Zarko nu ñuy def stade bi. maa ngi ciy woo amateur yëpp. waaw jaajëf. jërëjëf Pape Sarr. moom mi nga xamante ne moo nekk rent DKR production moo leen bu organiser journée bu mag dox ci diggante Mbaye Gouye Gui ak Zarko mu nekk journée ne ñëpp a ngi koy xaar Zo Technique dem na ci ardo boo ñëwaat arbitre bi àtte na ndaysaan xoolal Zo ñandu na ndaysaan moom Zo Technique Alboury bi doon Penda Ndiémé ak Jotik ndeysaan ñoom ñaar a ngi noonu Alboury zoo technique Alboury zoo technique Alboury zoo technique Alboury moo la woon ginnaaw technique nga jàkkaarloo ñaari xar ngi noonu Alboury jiital tànk càmmoñ Joe Technique jiital tànk ndeyjoor ndeysaan Joe Technique Kër Mbay Faal Alboury nekk sa njàmbur ñaar nekk bu waxee mu neex Joe bu waxee mu neex Alboury bu waxee mu neex waaye ñaari xale yi dañoo mën a bëre ma ngay cokkaas daw na jëlaat ko ci suuf daw na jëlaat ko ndaysaan Joe Technique mbëru suuf la ci suuf lay bëree Alboury da koo bëgg a xeex ma ngay dox ci ko am Joe ñëw na jàppaat na Joe li muy def du koo xam mbëru suuf la Pape Sarr waxoon na ma ko nee na ma bërëm bi yëpp ci suuf la Alboury sol ma ko waaye fekk nga avance boo xam ne doo xam foo koy waxee zone rek. door ci suuf zone si gina Alboury ngi door ndaysaan lu nar a xew Alboury ngi dooraat ci suuf zone ngi ne tekk rek di ko dégg. zoo technique mu ngi na tekk rek di déglu Alboury lan moo nar a xew Alboury zoo technique lan moo nar a xew Alboury zoo technique lan moo nar a xew Alboury zoo technique lan moo nar a xew Alboury zoo technique lan moo nar a xew Alboury zoo technique lan moo nar a xew ñoom ñaar ba tey ndeysaan ñoom ñaar ba tey ñoom ñaar a ngi noonu Alboury technique ñoom ñaar ba tey ña nga jàppante Alboury ngi dóor baa ngay waaj a yàgg ndeysaan Alboury combat lay Alboury jox na cër ki muy bëree Zo Technique da koo xam moo tax Zo ku ko cër mën na laa daan Zo Technique nàcc na arbitre bi gisu ko nàcc na Zo Technique nàcc na arbitre bi xanaa gisu ko Zo toj na ma ngay nàcc Alboury ngi dóor Alboury ngi na arbitre bi zoo technique demal ardo Ndeysaan par décision arbitrale da ko kaawo ñëwal teg rek gaay fusal fusal xal yaa bil président ñëwal Alboury Alboury Alboury Alboury gaay yowal yóbbu ko yóbbu ko teg no taas cër cër rajo gis gisa gis teg gis gis gisar teg eh gisar teg teg gis gis teg teg gis gis gis cër gis waaye Pape Sarr waxoon nga ma. billaay wallaay tey rek oh ndeysaan. Alboury wax.